Bébé Seul sama team daal en tout cas bu ko kenn xamal ne woo samay bongo maan ñu ambiance zalone zonge def lu ñu saab sama laal sama petit kii nii firig yaa ma gën a waa eh pour yow du ma sol sama hôtesse non damay sol sama hôtesse dama koy sol mais lan ngay toog looy toog en daal en daal sotti xam. wuy ma ko bokkal est-ce nga génn ci dina yomb. maay kuy génn. yaa ñoom dama leen di rey. Hmm. zilli ma naan. nam bi dañ koy yóbbu Malika. nam bi la ñuy yóbbu Malika dëkkandoo daa ko waaw nawle. daj sa mbaam. maa ngi xar bi may fees bu ma la ko joxee na ko togg normal bugguma ñu jël ndaare. dañoo war a yóbbu ndam li Malika fii. non Malika Malika. Malika ndam li la. boo boo. sabal Ousseyn dama lay en temps normal sax waruma la yeb parce que maa yow duñ wax jubawuñu ña am problème da nga dëgmal combat te xam naa da nga problème ak production <laughs> Ouzin la boo tiimee xar bi bul fees sa bopp. bu ma sa bopp. wala yedd rek. damaa mun boo tiimee xar bi bul fees police bay. waaw lu ma la tam dafa am ay doom. yaa ngi dégg. Hmm. Ouzin boo mënta gis teelal wax ñu disqualifié la. bàkk sëñ bi ma ko similé. <laughs> nooy feebaane feesal. fees. eh bul fees di di. wala booy fees. beneen fees boo xam ne bu neex nga dem nii. ma mu a fees. yow tey kaay wax la kaay wax la Ousseyn man damaa bëgg nga gagné. may gagné sax. yaakaar ma ko ci police mbay de. a man ci yow laa ko yaakaar parce que Sénégal bëgg ñu xam ni yow gentleman nga parce que fees dafa bokk ci base yi xam nga ay araw ay fees ay mayonnaise ay base la yooyu waaw mën a fees de Sénégal yi bu mën a fees ñu bëgg ne jël yàpp jaxase ko der bi der bi daa war a set bu der bi setee nga teg nag da ngay topp sa tere la da ngay topp topp ànd ak moom topp ànd ak moom boo pare boo paree concurrent la respecté ko ah. boo paree ba nga soog a dindi bu ko ne dañuy concurrent waaw ba pare ñu lay rek ñetti booy ñetti booy dañ pare de te dañ tàmm ñetti booy dañ tàmm gañ Mbacke dama ay nit tuur la bu xëccoon loolu. ci soo ba tey. te foofu dafa méchant. ñu toll ci wax mais nag bii si su meekul du fecc. xam nga tey laay fecc du a mën mi ku ne nag mën te olof Ndiaye dafa ni boo mënee rek mën nga jaru ngay extrait maanaam di am ay problème adduna ak yooyu noonu jaru ko boo mënee rek mën nga noppal ñëpp te kii lépp lu muy waaj a def moo gën lu dafa la wàcce gaay bisu ngoonee bu dee laa bëgg a def xamal ni toog na waxtaan ak ci euh, du français ni may waxee nii xelam mi ci mi ngi ci ay 500000 pour jox ma ko mais mi ngi xalaat. xalaat tey amul woon nag bu la El Hadj Ndiaye amul woon day làkk anglais am time am go. moo gën suñuy am shit. wóoy moo gën ba xam nga ni kër gi. gaaw ci ñun. dugg loolu ku leen géeme. am jom nangoo liggéey bëgg boppam. boolewul dara ki wax la bokkul. mais sa xeetu brodé lan la. ñàkk yére. ku la ku la def nii ku la def nii. Modou Gueye yére korte bi laa yére korte bi laa sonn nii. <laughs> kon yore tabaski bi boo ko soxee. waaye nag dama neexul ba neexul waaye dama ne bisu ngoone wóolu na ki mu àndal. saak la ko jox saak. te waa jàngi du ko ko génn amul surveillance. maa ngi koy xooli ci bët. saak bu seer la ko jox saak bu seer la ko jox. Buraki sa kii sa gën. kii sa gën. buraki sa gën. buraki kii sa gën. li nu am ci énergie ñu ngi koy jox nii. daanu ko bëgg wala koy crise lii la am tey jox la mooy kooku mooy kooku lu tàng li balaa programme bi. njoo teg parce que yàlla damaa teg xaalis concours la billahi wallahi dara du génn jaar maanaam. waaw déedéet waay. waaw kon déedéet waay. aywa man complexe naa ko bëgg. bëgg naa yéen. waaye. waaw ñu ko ñu def. waaw. ma woote Isel rek. Isel rek laa woote nii ma. waaye wuy nii. Isel nii waaye Fatou yaa propre nag. waaye jekk nga ne. dégg nga xëy de. ba pare nga jox nga ma lii suba bi nii nii rek. dëgg la sax nekk waaw. kontaan naa leen. kontaan naa leen. complexe ay fruits de mer ay crevettes. non dañoo xam ne non ñun génnuñu Sénégal cosaan rek aada cosaan la ñu wax. lépp waaw nag kaay ma wax la nag buy ma Mbodj nag kaay ma wax la nag jongo ma nga d'accord nañu waaye oui période bi jur ne ah ko neex. bu eh. ba ngeen

ne yàlla loolu la doon maa ngi nii man ay waaye maa ngi waaw dëgg la nag bii ngelaw la de. waaw mais bii sañ ca ga. waaw léegi sama ji la léegi sama ji. sañ ca ga yow sañ ca ga. waaw wuy ma yii ah yii ci biir suñu yëpp. waaw fii du ko xewlee. donc day bëgg nga rek tey. donc ak nan nga ko yow. mbirum ay ay ay ay. nekk nii suñu suñu c'est la famille